maintenant la une du jour man damay ñëw sur le le titre du du soleil. Mmh. parce que c'est très important mooy le fonds intergénérationnel. parce que aussi dañu nekk ci réew boo xamante ni dañu gis pétrole ak gaz et que le président bi nga xam ni moom moo fi jëloon maitre en place ñaari fonds. le fonds mm. intergénérationnel mooy fonds bi nga xam ni moom mooy gérer les générations futures ci revenu yi nga xam ni moom moo ci war donc aujourd'hui su ci titre soleil su ci soleil waxee. sa veut dire que dafay revêtir benn importance bu capitale par rapport à la gestion du pétrole et du gaz. Mm-hmm. parce que dañ ci war a wax. ñu xam mm-hmm. ressources yi fan la ñu war a dem. donc mm-hmm. on nous donne comme information comme quoi que war nañ mun a <clears throat> d'ici a gis ci biir compte fonds boobu quatre-vingt-cinq milliards. c'est une très bonne chose parce que on a vu que notre pétrole et gaz gestion bi xalaat nañ ci les génération futures ça c'est une très euh, te loolu dañ koy saluer te euh, gis nañ ñi presse bi moo ciy wax te loolu aussi actualité la war a mun a doon rapport à l'actualité on a vu que <clears throat> c'est toujours l'actualité phare hein, c'est la politique qui prend la place au-dessus de tout ci nga xam ni moom moo moom moo moom mooy moom mooy soxal askan bi par exemple euh, aujourd'hui euh, l'état de grâce bi dafa jeex mm-hmm. parce que c'est c'est les 100 jours loolu loolu loolu euh, <clears throat> élégance républicaine la mooy du loo xamante ni dañ ko institutionnaliser élégance républicaine la et la sortie de de Thierno Bocoum quand même a a a fait tollé Euh, par rapport à à la situation politique euh, jël na jàngat na situation des 100 jours yi joxe nay information yu bari donc euh, loolu su amee rek du ñu def lu dul taxaw seetlu par rapport a lactivité activité de ce pays là. Mhm. aujourd'hui dafa am koo xamante ni benn nit moo xamante ni. moom mooy def l' comme bi ni ko Birama waxee ba mu nekkee opposition moo daan def l' actualité su nekkee au pouvoir moom mooy def l' actualité maintenant position yi dafa war a différer parce que c' est le la République du il doit faire l'actualité par rapport à des actes et à des réalisations mais il doit pas faire l'actualité par rapport à des déclarations politiques maintenant su déclaration politique amee acteurs politiques yi dinañ ci wax maintenant par rapport à presse il y a des questions qui intéressent la population sénégalaise mm-hmm. te peut-être la politique prend le dessus trop trop sur la sur la sur la situation des Sénégalais. Mm-hmm. par exemple euh, dañuy jël suñu gan rek moom nuyoo na dugal na benn projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour la criminalisation de la non-sexualité. Mm-hmm. les gens les gens n'en pas on parle de déclaration de politique générale on parle de de de de et c'est une loi boo xamante ne yaakaaroon naa ne amoon na coow bu bari bu mu andi woon ci biir Sénégal. Mm-hmm. te presque mënoon nañ ko mën a jël waxtaan ceeg askanu Sénégal gàcce gàllaama ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko invité mooy la 7TV mhm. pour mu mën a toog ñëw mën a leeral askanu Sénégal par rapport à ce au contenu de ce projet de loi là pour leeral askanu Sénégal